collectif des recalés alors dañuy jokkoo ak sunu doyen Mamadou Sy Albert la te ñuy delloog yéen ca conseil constitutionnel doyen ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal la ci jotaay bi. maa lay fay Fatou. ay am mbette aussi. Mhm. ñu di la gërëm ci euh, disponibilité bi alors doyan conseil constitutionnel tey ñëpp di ko xaar euh, ci liste définitive bi mu war a publier waaye ni ma ko waxee léegi leneen li ci laxasu mooy euh, ay recours yu bëree bëri yoo xam ni dem na fa recours yi soxal peut-être ñi nga xam ne recalé woon nañ leen ci parrainage mais le premier ministre candidat benn Benno Bokk Yaakaar itam dugal ay recours contre Amadou Ba wala réclamation contre Bassirou Diomaye Faye ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ginnaaw Amadou Ba euh, ku mel ni Thierno Alassane Sall attaqué euh, candidature bu euh, Karim Meïssa Wade ndax coowal double nationalité tey enjeu wu élection bi ak surtout li conseil constitutionnel war a def tey noo ko gisee en tant que journaliste analyste politique mais aussi ku yàgg observer seen politique bu Sénégal. wax nañu wax nag ñu ngi xaar moom conseil xaar bi nag am na solo lool lool. ndaxte présidentielle bi euh, am na ñu ko waxee suñu candidat yaakaar nañu dinañu bokk euh, léegi nag recours yi bari na euh, conseil bi moo war a àtte moo war a àtte candidat yi ñi xam ne def nañu recours mën nañu wax ne daal loi électorale bi ak constitution bi ak jàmm réew mi foofu la su conseil conseil war a sukkandiku pour at hmm. bon léegi nag nañu wax ne nii la koy atte wala nii la koy atte en tout cas recours yi hmm. euh, bu dee recours euh, Karim constitution bi lay conseil war a sukkandiku hmm. euh, bu bu dee jomaay ci loi électorale bi la gën a ëpp doole bon boo jëlee maintenant ñu recalé Euh, di di def recours ci loi électorale li la sukkandiku hmm. bon maintenant boo boolee loolu yëpp constitution bi loi électorale bi lu ko mooy équilibre euh, politique et hmm. bon donc euh, man ci li ma yaakaar daal su conseil bi jëlee loi électorale constitution bi ak les équilibres bon normalement du am coow hmm. bon mais bu jëlee décision rek jaar ci droit rek hmm. euh, bàyyi loi électorale bàyyi équilibre loolu day indi déséquilibre bon ce qui fait que euh, léegi nag responsabilité bu rëy la ñu hmm. xaar conseil bon yaakaar naa aussi loolu mësul am mësul am contentieux yu mel ni avant même publication bi hmm. te pression bi euh, rëy na conseil bi waaw léegi nag euh, situation pression moom am na ci ci kaw conseil bi euh, maintenant conseil bi moo war a jël quand même Mhm. doyen bu weesoo yooyu dossier ñu fi tudd am na aussi dossier Ousmane Sonko mi ñu mën a dugal sax ci peut-être collectif des recalés mais la particularité de Ousmane Sonko xam nañu ko mooy quand même opposition bi tey mun nañu ne mooy ki ci gën a teg tànk politiquement mooy aussi ki ci gën a am doole euh, euh, ci mbooloo mi muy dajale mais aussi euh, porté wu discours am alors sur le cas Ousmane Sonko lan ngay xaar ak lan mooy enjeu yi fi ñu toll il a d'autres plans euh, leer na mooy Jomaay fay euh, ki ñu naan Habib Sy docteur Cheikh Tidiane Dieye aussi euh, mun nañu ko jàpp ndax ñooñ ñëpp nee nañ bu Sonko jàllee dañuy rocci seen ay candidature alors tey sur le cas Sonko et les enjeux lan nga ñu siy mën a wax. waaw Sonko moom li nga wax bu dee bu dee politique rek la ñuy wax. Hmm. moom mooy chef de l'opposition. d'accord bu ñu xoolee aussi moo doon parti bu gën a ëpp doole ci euh, en tout cas ñi mu yëngatoo ni muy defee mm. politique moom gënoon am influence bon léegi Ousmane Sonko moom moom la ñu xaar mm. dëgg dëgg ñu bari lu leen euh, tiital mooy est dina bokk est-ce du bokk bon Ousmane Sonko bu bokkee nag bon defe naa euh, dina changer en tout cas lu bari mm. ci enjeu politique bi mais maintenant li nga xam ne daal euh, bu dee conseil constitutionnel xool na jurisprudence prudence bi mu defoon en quatre-vingt-dix-huit mhm. normalement Ousmane Sonko war na bokk ndaxte luñ koy jiiñ defu ko mhm. mooy quittance bi dañ ko ko tere du du càggan Pastef du càggan Ousmane Sonko mhm. administration bi moo ko bañ mooy conseil la caisse de dépôt boo xoolee aussi fiche bi administration bi moom bañ a jaar ci yoon appliquer décision de justice donc bu dee loolu moom Ousmane Sonko mën na jàll mais bu dee nag euh, dafa bokk ci Pastef dañ ko nga xam ne dañ ko dissoudre te mu ngi ci prison bon loolu aussi ba euh, juge politique bi na basé wu bloqué ne dossier am c'est incomplet donc mën na bokk comme mën na bañ a bokk ba waxtu bi ñuy wax ni doyen tey lan mooy enjeu wu candidature parce que xëy na bu amul woon yeneen plan mun nañu jàpp ne ba tey ñoo ngi ci Sonko ou bi xëy na su boobaa suñ ko jàllalewul coow mën na euh, jib dëkk bi yënguwaat mais stratégie bi mu tekk ñëpp gis nañ ko est-ce que mun nañu euh, tirer comme conclusion que ni même si sa candidature n'est pas déclarée recevable euh, dara du xew réew mi du ci yëngu parce que am na yeneen plan à, condition bien sûr que yooyu plan jàll parce que ñaari attaqué nañu leen déjà à travers une réclamation du premier ministre euh, candidat de Benno waaw bu dee kenn ci ñoom jàll na loolu defe am tension parce que euh, Ousmane Sonko ña yaakaar na dina def consigne pour kooku nekk candidat am nekk candidat Pastef ak ñu ànd ak moom mm-hmm. donc loolu moom su amee dañuy dem campagne comme normalement ak seen candidat mm-hmm. wante nag suñu leen dindee euh, ñoom ñëpp képp koo xam ne mën na jege Pastef mm-hmm. Pastef su amul candidat loolu quand même dina dina dina changer lu bari ci élection bi hmm. bon te di mën na indi ay tension bu bari hmm. parce que quand même euh, sénégalais yaakaaruma ñu nangu euh, ñu éliminer lépp lépp li xam ne jege na Ousmane Sonko hmm. loolu loolu moom mën na modifier bon positivement Ousmane Sonko jëlee conseil votel kenn loolu du am problème mais joxe beneen consigne comme boycott wala comme euh, en tout cas lu jege violence mm. mën na changer lu bari ci ci élection bi mm-hmm. alors euh, euh, doyen stratégie boobu Ousmane Sonko teg euh, yow noo ko gisee surtout en misant ci ku mel ni Habib Sy docteur Cheikh Tidiane Dieye Diomaye mi ngi toujours dans les liens de la détention même s'il n'a pas encore une condamnation définitive mais plan boobu mu teg ñetti candidature mun nañ ko wax ak bosam muy ñeent politiquement yow noo ko jàngatee. bon stratégie bu baax la. bu baax la parce que euh, nguur euh, APR ak Benno ñoom Ousmane Sonko la tegoon bët du du bokk xeex ko xeex ko ba yóbbu ko en prison mais bi mu demee prison hmm. mu xam ne nag euh, presque moom jàpp nañ ko mu teg benn plan su ngeen ma dencee wala su ngeen ma bàyyee lu ci mënti nekk man am naa plan plan boobu li mu joué noonu. Hmm. quand même euh, ci politique euh, ñëpp ñu ngi wax ba léegi parce que. Hmm. ah euh, yaakaar naa kenn ci ñooñu di dina jàll. Hmm. maam bu jàllee nag mais loolu ndam parce que nar nekk ndam Ousmane Sonko la la la nar a donc plan boobu je pense que c'est bien réfléchi l'essentiel pour man. c'est que le, même amee benn euh, ku jàll. Mm-hmm. il faut que Ousmane Sonko aussi réfléchir ci naka la kooku war a demee. Euh, que que ñu am euh, une option claire un seul candidat. Mm-hmm. mais bu amee xiiroo ngaayoo seen daal baaxul baaxul ci Pastef. Mm-hmm. ñu ñëw ci recours premier ministre euh, euh, raison yi mu euh, avancé wala preuve yi mu yóbbu conseil constitutionnel am na luñ ci for ndax ku mel ni docteur Cheikh Tidiane Dieye am na lu mu ci génnee mooy photo bu mu ànd moom ak Ousmane Sonko mu ne si loolu la sukkandiku pour ne moom Pastef la bokk dissolution Pastef aussi évoqué na ko et pour Diomaye et pour docteur Cheikh Tidiane Dieye tudd tamit déclaration bu kooku def wax ne Pastef et mouvement Sénégal bi ñu bëgg sont indissociables déjà ci forme réclamation bi wala recours bi mais aussi raison yi mu avancé moom euh, premier ministre est-ce que vraiment mun nañu séentu conseil constitutionnel am lenn ci euh, lu mu sukkandiku pour gàntal candidature yi mu visé muy bu Diomaye fay ak euh, docteur Cheikh Tidiane Dièye defe naa premier ministre candidat Benno jub na jub na la jub na hmm. defe daal moom warul woon def recours yu noonu daf koy gën a discrédité boo gisee euh, Cheikh Tidiane li mu wax mhm. bon euh, weddi na ko mais gën na ko suufal mhm. et même électeurs yi dinañu xam ne Amadou Ba dañ ko utiliser loolu loolu du Amadou Ba mhm. li am pexe APR la ak Benno la pour xeex euh, Cheikh Tidiane ak Diomaye mais est-ce que c'est pas trop léger comme argument doyen est-ce que c'est pas trop léger comme argument pour ne pas dire ridicule parce que photo quand même euh, président Macky Sall ànd na fekk ñeneen ci ay photo moom Amadou Ba ànd na fee ñu mbokkalul parti yeneen parti sax investir nañ ko est-ce que loolu vraiment euh, même bu dul Amadou Ba une coalition quand même comme Benno constituée de cadres euh, de hautes personnalités politiques war nañu def euh, recours yu mel noonu non waruñu waruñu même APR waru ko def ah. Ah, Amadou Ba nekkoon na ministre de l'économie et des mm-hmm. dafa doon julli ak Ousmane Sonko no mm-hmm. buñ ko loon foto moom ak Ousmane Sonko lan lay wax ah, ñu ne Pastef la bokk waaw mais donc il faut que da xam ne dañ ko utiliser Amadou Ba mm-hmm. je pense que il n'a pas réfléchi sur l'effet contraire Euh, APR ñoo ko sant mu def recours mu def recours sans réfléchir et ce qui fait que euh, defe naa moom moo nar a perte ci recours yooyu bon gisuma aussi conseil constitutionnel mën a basé ci recours yooyu c' est trop fragile hmm. c' est trop fragile parce que bu doon conseil moo wax yow jamaay ci Pastef nga bokk dama lay éliminer mais loolu moo xel mën na ko nangu wala ñu ne Cheikh yow dañ la gisoon nañu lii ak lii ci passé bi conseil bu ko waxoon. Mhm. moo moo moo moo gën ci ci APR wala ci ci ci benn mais un candidat comme Amadou Ba euh, bon boo utiliser des armes yi nga xam ne qui sont politiciennes. Mhm. bon sa der rek ngay nga nga nga yàq. ngay yàq donc mënuñu séentu quand benn suite bu conseil constitutionnel mun a jox yooyu recours. pour man en tout cas comme ni mu la ko waxee su dee rek conseil bi jël na loi électorale hmm. jël constitution bi jël équilibre parce que élection présidentielle test d'équilibre hmm. équilibre bi mooy que sensibilité yëpp dañu war bokk c'est une élection présidentielle hmm. et participation bi loolu mooy wone euh, l'unité nationale bon loolu su ko su jëlee en tout cas base boobu normalement dafa war a consolider la liste des vingt et un hmm. waaw mais bu duggee ci élimination euh, poli politique hmm. loolu moom euh, soo moytul président du conseil la dinañ ko critiquer euh, ko critiquer te loolu baaxul ci image conseil constitutionnel hmm. mais on a quand même une histoire doyen ak conseil constitutionnel xam naa ne euh, fekkee nga lu bëri mais tey xel yi euh, dafa gën di teey ci conseil constitutionnel parce que dañ ko mus a wax ne dafa nekk peut-être euh, bras armé buñ ko mënee waxee noonu bu pouvoir bi souvent pour valider lu ñu bëgg walla invalider loo xam ne bëgguñu mu jàll si li nga fekkee. est-ce que conseil constitutionnel quand même mun mus na def exception loo xam ne tey ça peut servir de jurisprudence lu ñu mun a sukkandiku ne euh, donte y a des recours euh, qu'on peut juger purement politique ou politicien mun nañu espérer quand même pour telle raison que le conseil constitutionnel dira le droit et, uniquement le droit en tout cas pour souvenir expérience bu gën a am na ñaar hmm. par exemple Ousmane Camara bi ñuy def procès Mamadou jaar nekk procureur taxaw euh, bañ a def luñ ko sant mm-hmm. loolu référence bon beneen référence bu ñu am aussi mooy Kéba Mbaye mm-hmm. bi mu gisee ne que luñ koy sant ménguwul ak électoral ménguwul ak constitution dafa jàpp njàmburam génn ci. démissionné waay. bon léegi président conseil bi nag euh, actuel bi moo war a jël ses responsabilités. Hmm. Euh, am sur le cas de Sonko am na jurisprudence donc mën na ci sukkandiku bon soo jëlee le cas de Diomaye wala Cheikh Tidiane euh, et les autres. Hmm. bon am nañu quand même référence que mësuñu. Euh, tere opposition bokk ci élection mm-hmm. euh, donc jurisprudence euh, ci nguuru Abdou moom c'est le meilleur exemple mm-hmm. malgré diggante Abdou ak Abdoulaye Wade Abdou Diouf musul xalaat ne tere Abdoulaye Wade bokk ci élection présidentielle mm-hmm. donc loolu yëpp c'est des cas moo wax la daal que président conseil bi bon euh, ak conseil bi ñoom ñëpp c'est des sages mais maintenant nag ñoom ñoo war a jël seen responsabilité hmm. c'est une responsabilité politique euh, quand même institutionnelle hmm. bon suñu buggee am démocratie xam nañu lu ñu war a def mais suñu buggee far nag bon loolu non seulement sénégalais duñ ko nangu mais lu may ragal mooy que mu am tension ci biir conseil bi ci boppam loolu la ñu bañ a déggoo ci seen biir. ah oui su su fekkente ne décision bi c'est trop trop trop politique respecté wu loi bi. Mm. respecté wu constitution. mais ñoom juróom-ñaar lañu. waay de am na ñii seen euh, en âme et conscience ànduñu ci. mais mën na indi waroo ci biir conseil bi. dans ce cas nu muy demee doyen c'est la majorité qui l'emporte. Oui, c'est la majorité, la majorité absolue. C'est-à-dire Parce que euh, sept lañu su dee trois contre trois la voix du président est prépondérante. Hmm. mais su amee quatre su amee cinq une majorité absolue. d'accord loolu moom président mënu ci dara. day jàll. Euh, soit day jàll ou soit moom mu mu démissionné. d'accord. Mm. peut-être foofu la enjeu wu ñi président di tànn euh, doyen di di duggee enjeu euh, excusez de la répétition parce que dañuy faral di wax ne ku la abali bët fu ko neex ngay xool donc su fekkee ca tànneef ba y avait déjà des calculs politiques est-ce que loolu suñu yegsee ci situation yu ni mel mënul jouer peut-être en faveur de ki leen tànn. non man bon euh, tànneef bi moom dal dalul suma xel depuis le départ. composition bi conseil bi non composition bi c'est pas c'est pas grave mais plutôt traitement gis nga membre du conseil mmh. seen traitement salarial seen traitement sécuritaire pour moi mën na tax nga bañ a nangu nekk euh, libre corruption financière wala corruption sociale pour man loolu mooy blocage bi. d'accord. que que nit ñi dañu yaakaar ne que président bi moo moo jox njukkal da ko war a delloo njukkal. waaw alors que suñ la lu ñu la jox comme privilège c'est pour que nga mën na nekk libre. Mm-hmm. et je pense que euh, en tout cas yi ñu am foofu bon am nañu expérience mhm. que ce soit euh, juriste yi wala même les inspecteurs ta wala professeurs d'université mais ñooñu dañu am expérience dix ans quinze ans vingt ans de métier donc am nañu quand même responsabilité ak courage pour ne lii mooy droit lii mooy électrode bi lii mooy euh, constitution bi bon maintenant su fekkente nag ñemewuñu nag jël seen liberté bon loolu mooy indi politisation bi. Hmm. jërëjëf doyen loolu leer na nañu yaakaar ne xëy na tànneef bi ak yi nga tudd noonu yëpp du ci am benn njeexital euh, gannaaw dañ laa